Youssou Diallo ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi maa ngi lay fay soxna si. am nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi yow yaay euh, njiital club Sénégal émergent nekk itam président conseil d' administration bu Sonacos conseil départemental nga aussi euh, ci Ndar alors yow euh, yaa ngi attirer attention wu autorité yi ci xaajaloo lu mu mun a jural coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi nu dëkkmal lan ngay ragal dëgg-dëgg ci locale yi ñeel coalition bi. waaw soxna Fatou maa ngi lay maa ngi lay sant ci la gërëm di nuyu waa Rewmi FM euh, ña fay liggéeye ak seen kilifa mais aussi surtout seen auditeurs yi nga xam ne ñoo leen di déglu ci réew mi yëpp et di leen sargal di leen féliciter ci ci taxawaay bu bees ngeen am muy taxawaay vraiment yeesal bu bu am solo leneen li nag mooy ci wàllu loolu moo wax ci ndar et waxuma ko même pour kilifa yi hmm. xam nga ko ma koy wax hmm. bopp laay soññ parce que man ca laa bokk waaw ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne maag ñoom ñoo ko bokk. Mhm. depuis deux mille quatorze ba léegi ñooy ànd di dem ci ay élection di ko nit nag e bu fekkee am na loo xam ni moom moo ko dig te mu yeewu suba gis ni kat loolu mi ngi ci mi ngi mel na e, seytaane nga koy bëgg dugg maanaam juboo booloo àndoo nekk benn bokk ndey bokk baay soobandoo e, e nga yeew suba nag yi kenn xamul door di di feeñ et booy koo xam ne yàlla dimbali na la tuuti et da ngay artu parce que nee nañu wolof nee na xoddee ko def naa ba nga lakkale ko mhm. balaa ngay lakkale te artu nag e dafa boobu nag sama bopp laay artu mm. ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal ci langue politique bi foofu ci ndar mm. particulièrement ñi nga xam ne ñoo farak nekk ci langue Macky Sall loolu nag li tax ma def ko mooy dañu jëm ci élection yoo xam ni moom laay wax nee naa mooy nawetaanu politique te xam nga nawetaan moom da ngay gis benn benn quartier koñ bu nekk presque am équipe. waaw et te loolu nag bu fekkee xaw na jig ñi nekk ci opposition jigul ki ne ñi nekk ci pouvoir. Mm-hmm. parce que pouvoir pàcc bu ci dem beru rek dafa am lu xaw bare lu mu jóg. Mm-hmm. te loolu dafay nekk loo xam ne buñ ne élection locale di nawetaan rek. loolu dafa ñi nekk ci camp pouvoir lay gën a dal ñi nekk opposition xam nañ dañu néew doole dañuy jéem a ñoom di ànd di jubóo damay fàttali ni ci ndar diggante opposition bi yëpp boo ko boole ak ñi nekk ci majorité présidentielle bi écart bi matul dix à quinze pour cent hmm. te ah, majorité bi am na ay kilifa yoo xam ne ku ci beddoy ko rek mën nga yóbbul ëpp quinze pour cent hmm. xam kooku da mathématique mhm. moo tax nag et puisque élection yi ñëwagul waaye soreetul et nañu fàggandiku balaa daal euh, am loo xam ne da danañu mat mhm. alors dégg nañu mooy mooy sensu appel bi. d'accord dégg nañu professeur Mary Teuw Niane euh, mu daal di déclarer candidature am bu yàgg dégg nañu aussi euh, wala yaakaar nañu ne Mansour fay tamit euh, dina doon candidat ak ñeneen ñoo xam ne nag xëy na ci majorité bi la ñu bokk muy PS ak yeneen parti yi ngeen bokkal coalition présidentielle bi est-ce que mm. yaakaar nga ni président Macky Sall dafa war a yëkkati kàddoom ngir teel a indi saafara balaa béy di wéy mbuus déedéet loolu li may wax waxuma ko pare pour pour mu jëm ci Macky président Macky Sall. Mm. na moom dina ko yëg waaye nag e élection locale la ñi mu concerné mooy waa Ndar et waa Ndar yooyu nga xam nag la concerné balaa ñoo indil président Macky Sall ay yu mu war lijjanti parce que président Macky Sall réew mi Covid bi plan de relance ak yooyu doy na ko sëkk ci liggéey. ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci ndaat sa boobu ba léegi quand même ñi ngi ànd di juboo ñun ñoo war a e saytu suñu bopp jéem a dajee gën a waxtaan et ambition nag moom ci politique fi lañ ko fekk surtout ci élection locale boo nattee sa bopp ba gis ni diis nga eh ñi xëy na bu ñëwee bëgg naa man sama bopp ma taxaw laaj eh kooku kooku kenn mënu ci kenn mënu ci critiquer nit mm. lu légitime la waaye nag lépp ñu teg ka ci rek ñun aussi ku ci nekk moom loo sa moom nga am na loo moom waaye am na leen loo xam ñeneen ñee ko moom. Mm-hmm. ñu jëm nag ci biir bo biir loolu ñu fexe ba nga xam ni et suñu ay ambition du suuxal li nga xam ni et moom lañu doon ci dëkk ba ak ci réew mi parce que bu ambition kenn naree yàqal wala ñenn naree yàqal ambition euh, langu benn Bokk Yaakaar yëpp loolu musiba la moo tax nag ñu war daje ci suñu biir. door di waxtaan door di saafonte e ba nga xam ni e bu ñuy jublu ci élection locale yi dana mën fexe ñu seet ci lu ñuy juboo ba nga xam ni président Macky Sall du ñëw sax di ñu àtte mais est-ce que yaakaar nga juboo boobu dana yomb ci contexte bi ñu nekk ndax euh, duma la ko wax euh, ñu bëri jàpp nañu ne xëy na bii mooy doon mandat bu mujj bu président ñeneen ne mën na am représenté wu loolu débat troisième mandat bi la dinañ ci ñëw mais contexte bi euh, bu ku nekk jàppee ne yëf yi mën na fee yem est-ce que kenn ku ci nekk itam doo jéem amal sa bopp loo xam ni yow yaa koy liggéey jaare ko ci local yi. en tout cas li ma li ma xam ci ndar daal. Hmm. yaakaaruma ni ña loolu nekk et li ma yaakaar daal mooy waxu troisième mandat boobu. Hmm. et espèce su fiir la. fiir nag mooy genre këppatal boo xam ni opposition bi daf ko bëgg fiir nguur gi ci wàllu li ñuy wax communication au lieu ñu wax li Macky président Macky Sall di liggéey au lieu ñu wax li muy réaliser ci wàllu économie ci wàllu l'école ci wàllu santé ci wàllu. Euh, xëyu ndaw ñi ci wàllu yu mel noonu pour jëmale réew mi kanam ci wàllu émergence ci wàllu yu mel noonu et nit ñi topp rek di wax bés bu nekk ah dana laaj troisième mandat du ko laaj kooku nit ñi daañ dem ba dootuñu dégg leneen lu dul lool président Macky Sall nag nga xam ne macha allah nag ci wàllu politique nag am na lu ko yàlla may mu ni ñi nga xam ne ñoo ànd ak man moytu leen débat boobu parce que bu ngeen ci duggee bu ngeen ci génn bon nag li may ñaan mooy képp koo xam ne ànd nga ak man bokk nga sama majorité débat boobu ngeen génn ci ngeen bañ ci wax. parce que waxtoom dana jot mais fi mu nekk jotagul. Sénégal yi bërki demb lañ ma jox réew mi dañ ma ko jox pour ma liggéey ko li ma leen diggoon ma teg ak seen loxo. li wax ci nii rek la dem. Mhm. kon nag képp ku nekk ci ci ci ci majorité présidentielle bi. Mhm. war nga xam loolu li loolu président wax. ay la yëwoon mooy dëgg nga tegu ca. jublu ci liggéey jublu ci régler problème mu yi parce que looloo tax ñu fal. Mhm. mais seetlu nañu ne nag ku wax ci troisième mandat bi rek mu teg ci sa ndombal tànk mais Moussa Diop moo ci mujj ko jiitu Sori Kaba ak euh, Moustapha Diakhaté est-ce que tamit lii bu yàggee du tax sénégalais yi jàpp ne moom dafa bëgg a laaj mandat moo tax ku ne waru ko am rek euh, mu dal sa kaw. déedéet waaye borom kër boo teree dara eh, nit def ko. Eh, yow mën nga digaaleeg moom. waaye ñooñu koy wax wax ne war na am mandat te waxu leen dara nag. Oh, kooku de xëy na yéen ak yéen ak yéen ak yéen ak xalaat rek waaye hmm. moom euh, président Macky Sall daal euh, li mu wax euh, leer na et na ci ñëpp tegu léegi nag moom xam nga moo yore cagal guy gi. Hmm. et neexee mu tabb nit su réunir yenn conditions yi su ko neexee mu dindi ko question confiance la confiance na kenn du ko werante. d'accord amoon naa confiance ci diw amatuma confiance ci moom. xëy na wala poste bi li ma ko fi taxu ma ko fa doon doyee def na ko. et eh, léegi soxlaatuma ko foofu xëy na dama ko bëgg yóbbu feneen kooku xam nga kenn du ko werante hmm. donc man loolu du ma ci dugg daal. d'accord sañ nga ko alors euh, club Sénégal émergent bi nga jiitee naka la gisee euh, plan de résilience bi nga xam ni euh, tàmbali nañ ko doxal ngir fexe fànq li nga xam ne mooy njeextal mi mbas mi indi ci wàllu koom surtout ak itam plan de relance bi nga xam ni ñu ngi koy xaarandi. waaw foofu moom vraiment damay lu taxawaay bu président ak gouvernement ci affaire mbas mi parce que bi mu ñëwee gouvernement bi teel na defar plan boobu ñuy wax plan de résilience économique et sociale et ak surtout fonds force Covid 19 génn junni milliards et non seulement santé ñu gën ko renforcer jël lu toll ci soixante neuf ba soixante dix milliards yokk dimbale waat ko encore wa santé et foofu nag may rafet lu taxawaayu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak mbooleem kilifa yi nga xam ni et surtout ñoo ko encadré ci wàllu professeurs yi euh, médecins yi euh, euh, sages-femmes yi personnel de santé infirmier major yi ba ci ñi nga xam ni ñooy brancardier yi ak le personnel de soutien mais aussi fàttewuma ñu nekk ci laboratoire yi hmm. Sénégal wane na ni réew mu mag la ci wàllu santé parce que amul dara lu ñu jéggaani ci wàllu xalaat wala xam-xam ci wàllu santé moom kañ xëy na dañ naan mën nañ réew mu néew doole lañ waaye tey ji Sénégal wane na ne ci réew yi gën a am solo ci wàllu santé ci àddina la leneen li mooy ragaloon nañ ne xëy na xiif mën na si am ndax xëy na bu ñu arrêté frontières yi tëjee frontières yi xëy na dund gi nga xam ne day jóge bitim réew mën na am ay pénurie maanaam dund gu manqué wala njëg yi yokku wala yu mel noonu mais loolu yëpp alhamdulilah liggéey ak taxawaay bu rafet bu gouvernement bi loolu am na ensuite ñi nga xam ne aussi ñooy néew ji doole doon am ay jafe-jafe ci wàllu euh, nu parce que xëy amatul yenn arrêté nañu transport bi mm. hôtellerie yi marché tul ak ak restauration ak yu mel noonu ñooñu am jafe-jafe gouvernement bi génn ci gafakaam jàppale leen et cetera bon daal alhamdulilah ci wàllu résilience moom réew mi taxaw na taxawaay bu am solo mm. beneen bi nag mooy léegi ni ñuy fexe ba génn ci loolu parce que réew aussi te bu produireul ci wàllu économie wala muy dellu gannaaw ci wàllu économie mën na jur musiba yu gën a garaaw président Macky Sall taxawal li nga xam ne moom mooy plan de relance plan boobu nag mooy fexe ba nu ñu gën a suqalee réew mi ba émergence bi nga xam ne moom la réew mi taxawoon mu gën ko yokk léegi nag président jàpp na li ñuy wax plan euh, de relance ajusté et accéléré hmm. maanaam plan Sénégal émergent bi nga xam ne taxawaloon nañ ko ci deux mille dix neuf muy PAP deux ñu seet euh, euh, choc bi nga xam ne moom la Covid bi am euh, lu mu xaw wàññi ci loolu mu wàññi nag ñu seet nu ñu koy wëlbatee ba nga xam ne tey jii daañu mën sukkandiku ci ay secteur yoo xam ne dana tax réew mi gën a gaaw demaat ba nga xam ne croissance yi ñu amoon mu demoon ba ay 7 pour cent ñu yokk ko ba mu mën dem ay 10 pour cent. Hmm. ba nga xam ne bu ñu àggee ci terme euh, PAP 2 bi nga xam ne 2023 la incha allah Sénégal mën a gën a mën a avancer. ci wàllu émergence comme ni mu ko defee woon ci PAP. Hmm. lii daal moom laa yaakaar te te am naa ci yaakaar bu rafet parce que hmm. gis nga ni réew mi di yëngatoo et ni ñu xawoon ñaaw njot au début hmm. gis nga yaakaar dooraat na am te mbas mi ci boppam sax fi nekk gis nañ mi ngi jàll gannaaw mais yal na yàlla xeeb dool yi ba balaa yàgg allahu rabbi kenn doot ko waxat te ñëpp mucc ci yàlla dimbali ci réew mi dimbali ci réew yi ci àddina mhm. alors sànq amuñu woon temps bi euh, ñu wax tuuti ci Sonacos euh, naka la euh, tey entreprise bi nekkee ci wàllu koom-koom parce que bas mi bàyyiwul benn entreprise te itam ñu ngi jëm xëy na ci waajal beneen campagne agricole. waaw alhamdulilah Sonacos macha allah mi ngi mi ngi mi ngi avancé parce que xam ngeen ni recapitalisé nañu Sonacos bu bu yàggul am na léegi at Sonacos léegi daanaka bor ba mu amee woon yëpp daanaka féete bor. et léegi Sonacos entreprise bu ñu recapitaliser la nga xam ni léegi mën na dem ci banque yi mu leb digaale ak ñoom ak yu mel noonu mais aussi Sonacos weer bu dee bu nekk liggéeykat yi ñu ngi leen di fay Sonacos aussi ñu ngi lu di def ay investissement tey jii ci plan préparation campagne bi presque lu toll ci deux milliards dugal nañ ko ci plan de préparation de de la campagne waaye daaw nag gis nga campagne bi ni mu demee woon ba nga xam ni daanaka li ëpp ci gerte gi chinois yi dañ ko jëndoon. ba nga xam ne Sonacos mujjul jënd lu may vingt six mille mais yàlla dimbal nañu ak programme d' yi ñuy def ak yeneen pexe yi ñu def ba nga xam ni jot nañu supporter le choc maanaam kooku ñun moo doon suñu espèce Covid waaye nag yàlla dimal nañu entreprise bi résisté na hmm. ba fi mu nekk ñu ngi am yaakaar parce que campagne bi ñu jëm incha ragal nañ ni gerte dana bare te léegi eh, Sonacos yematul rek ci defar dëwlin euh, nal dëwlin euh, génn dëwlin génn raakal ak noonu ak euh, jëli loolu bitim réew euh, conditionné ko jaay ko ci bitim réew mais am na aussi yeneen pexe yoo xam ni xëy na euh, comme que dañu am ay concurrent du ma ko mën développé si mm. mais alhamdulilah yaakaar daal am na te yan yàlla gën a jàppale ci mbas mi nag Sonacos am na taxawaay bu rafet parce que ci bi ñuy jënd diwlin bi malgré campagne boobu nga xam ni baaxuloon bi amoon mm-hmm. Sonacos jaay na diwlinu gerte lu toll ci junni tonne ci ci ci nguur gi Sonacos def na ay action sociale yu am solo jàppale néew ju doole ci wàllu masque ci wàllu thermoflash ak ak yu mel noonu donc euh, vraiment euh, une action sociale bu xaw xaw am solo. d'accord et kooku nag def naa eh, dinañ ko gërëmee. le directeur général bu bees bi muy muy Modou Diagne Fada. Mhm. ak équipe mu àndal yëpp. jërëjëf ñu koy nuyu au passage Modou Diagne Fada di la gërëm yow Youssou Diallo. Euh, ñu amoon mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay njiital club Sénégal émergent nekk itam a bu Sonacos euh, conseil départemental nga itam euh, ca Ndar ñu ngi lay gërëm bu baax Diallo.